ak sa woote. waaw ba yaa ngi jàmm. ñu sant bu baax Adama. waaw man damay woote parce que Ouzin Keita moom sama nit la. lu mu am problème bu mu am man lay woo sama nit la sama xarit la. ndeysaan dëgg la. waaw nekk nit ku baax wax dëgg yàlla. Mhm. bërki démb ba ko ba ko Pawlish may defee jëf ju ñaaw jooju damaa woo Pawlish ndax damaa mer ba saaga ko ñoom ñëpp ma xam. dëgg la. waaw dix mille problème tamit noonu moom tamit day déconné waaye daal ngoone li ma lay wax daal sama bàddoolo day saaga waatee bàddoolo la. waaw non Pawlish Mbaye bu ma dee wax noppi ma ñëw. sama sama tur bu ko wax. man dama wax ak kanaara. jërëjëf man dama wax ak ndayu góor jigéen. biiru day saaga biiru. man dama wax ak góor jigéen bay faaw. biiru day saaga waatee day saaga émission bi lay yàq day saaga bàddoolo bi laa walaay. barke alxuraan. laal xëcca xoolal laal xëcca xoolal xëcca biiru kii góor jigéen barke alxuraan kay biiru laay sa émission day yàq góor jigéen bu mag la góor jigéen bu mag mais téléspectateur bu woote ngeen ji mais ko ko jël ngir ko xamoo nag ñoom ñëpp ma ko xamoo nag ko mais xool barke rasulullahi góor jigéen bu mag la barke ak jigéen la wakay wakay nañ ko gérer ci bitim kan la ku baax kii kan la adama adama kim adama mo ko sama invité bi na ñëwaat man gis xaw ma kan la de. kii góor-jigéen bu mag la. Ah du ndaw de bu mag a mag. ay taatam sew na sew na góor-jigéen mag la mais dégg bëgg naa la deux mille jubóo nañu waaye. deux mille ma barke seen toit ba bëgg naa la bis la tey bii laa walaay. kii góor-jigéen mag bu mag. ah bon kii Instagram bi lay nekk. góor-jigéen mag la xaw ma kii kan la lu ma téléspectateur dañoo Mhm. dama gis ni ngi may confirmé. kii dama lay wax benn affaire de ba gën a rajo sociaux yi may ñaan état bi may ñaan xoolal nit ñi ñu am fulla quoi. ñu moytu affaire de direct affaire de Instagram affaire de live xaar xam nga ñun xamuñu. ñun xamuñu ñun il s'appelle à deux mots. kuy kooku mooy waa ji. waaw xam nga man boo ma ko wax da ngay xaw a métti parce que aw ma yooyu. daaw ma yooyu lii mooy liggéeyam góor jigéen daaw